barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. ndax mooy faatixatul kitaab juróom صلاة الفاتح لما أغلق dix fois astaghfirullah astaghfirullah soixante-dix fois bu ñu yeggalee def yaa salaamu trois cent soixante onze yaa salaamu trois cent soixante onze bu ñu yeggalee ci loolu ñu def salaamun qawlan min rabbin rahim salaamun qawlan min rabbin rahim dix-sept fois بن يغلي ني جانغات بنن آية القرآن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله جوم نينت يون نفوا لي دال بن يغلي نك ني دال ديفات نيتي بري صلاة الفاتحة تجيكو نيان موي نيان ليغا خامني مانكوي سانت ديكو فاتني كيف كو كيف كو ياب مقدم كيف كوي كليفة دينه كيف كوي بريزا داير كيف كوي إمام الجمعة كيف كوي جيدين بولو نانيو كو تساري دي كو دف كريم الرؤوف الرحيم الممدوح بالخلق العظيم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki Sénégal ak li wër Sénégal ak mbokki àdduna bi yëpp man seen mbokkum taalibe jaamu yàlla bu xeebu bu ñu wax Aboubacar Ba ak Tijaani maa yëkkati ay kàddu di ko jëme ci sama bopp di ko jëme ci yéen di wax ne ñu ngi wo suñu bop di wo aduna bi yeb di wo julit ñep surtout nak bokki senegal ci jamm jamm nak olof Njaay neena ci la lepp xej lool nak waxi olof la waye l'islam tol la wax te lool la wote yalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la digle ba tax na sax baat yi mu tànn pour jullit ñi di ko jokkulante baati jàmm la ufshu assalaam wax na ko ci ay bi yu wér ne siiwal leen jàmm séwal jàmm nag lépp loo xam ne dafay am ci lislaam day nekk qawlan wa fi'lan wa niyatan da koy fas ci sa xol di ko wax ci sa làmmiñ di ko jëf ci say cër moo tax assalaamu aleykum bi nga xam ne moom la ñuy njëkk a wax ci diggante jullit ak moroomam baatu assalaamu aleykum boobu ak ñaan la ñaan gi yaa ngi ñaanal sa mbokkum jullit jàmm boo ne assalaamu alayka wala assalaamu alaykum lee da koo def jëme ko ci kenn lee nga def ko jëme ko ci mbooloo mooy jàmmi yàlla yàlla na nekk ci yow bi maanaa yow diw mi ma janoon yéen kër gi nga xam ne maa ngi dugg seen biir yéen mbooloo mi nga xam ne maa ngi wax a yéen assalaamu aleykum jàmmi yàlla yàlla na nekk ci yéen teg ca wa rahmatullahi yërmande yàlla it yàlla na nekk ci yéen wa barakaatuhu barkeb yàlla yàlla na feeñ ci yéen ba lépp lu ngeen yëngu mu barkeel lépp lu ngeen am mu barkeel lépp lu ngeen def mu barkeel lépp lu ngeen wax mu barkeel xam nga baat yi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nga xamne manam dañ ko sante ab jullit ba sax amna hadith wa wax ne assalaamu qabla alkalaam fa man badaakum bis salam qabla salaami fala tujibuhu moy hadith bo xamne sax wér donte borom xam-xame hadith yi nañ ci werante waye hadith bu moy nuyoo moo jiitu wax képp ku ñëw ci di wax lu jëkk muy nuyu bu leen ko tontu gis ne kon nuyoo boobu yépp wa taxiyatum fiha salaam ba ca aljanna sax sun borom dafa wax ne nuyoo ba ca waa aljanna mooy salaam kon salaam boobu nga xam ne guddig laylatul qadar li dara jaam di foor di màgg yépp la rek mooy salaam mooy jàmm salaamun hiya xatta matla'il fajr udxuluha bi salaamin kon mane jàmm waxuma la ab jullit waaye képp kuy nit ku nite dana xam ne lépp luy maye jàmm ku nekk war na di ci dox ndax boo amul jàmm lekk sax dookotal naan sax dookotal amul benn maanaa activité boo xam ne diñ ci a taxaw bu fekkente ne amoo jàmm moo tax ñi am xel ñëpp waxuma la ku gëm yàlla wala ku dul ab jullit wala ab jullit mais képp kuy nit ku nite rek di nga bàyyi xel ci lépp luy indi jàmm di nga moytu itam ci lépp luy indi fitna te fitna moom yonent bi wax na ci xadis bu wér ne dégg alfitnatu naimatun laana allahu man ayqadaa fitnaa ngi nelaw képp ku ko yee yal na yàlla nekk ci sa kaw yàlla rëbb na képp koo xam ne yee nga fitna kon mbokk yi lii war nañ ci bàyyi xel mabda iyan rek bu fekkente ne ay nit lañ yu am xel bu fekkee ay jullit lañu yoo xam ne dañu gëm yàlla gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkente ne itam ay taalibe lañ yu jokk ci ay sëriñ ñu xam ne woote lislaam yëpp mooy woote jàmm sunu réew mii ñu nekk di réewum Sénégal réewum jàmm lañ ko xamee woon depuis ca maam yaak maamaat ya ba tey kon mbokk yi nañu bàyyi xel ci jàmm te gis nga fitna yàlla moo ñu wax ci alquran fitna fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa moytu leen fitnakat ndax fitna bu ñëwee ñax bu wow dana la kaale bu tooy sunu maam maam alxaaji abdoulaye ñes radiallahu taala anhu way juru cheikhul islam alxaaji ibrahima ñes radiallahu anhu daana wax ne fitna feeg yaa ngi koy dégg yaa ngi dégg fitna rek muccoo ca fitna ja kon fitna ku ci bëgg a mucc da fexe ba dootoo ko dégg waxantuma nag ngay wax luy indi fitna wala ngay def luy indi fitna te jaam bu ne war ngaa xalaat ne lépp loo wax bala ngay séq sa ñaari jéggu ci sa bàmmeel yàlla dana la ko laaj dana la ko xisaab te mbir mi àdduna bu mu jay kenn mu jag mu jam rek mooy guddi na wala naaj la ñu gas ba mu xóot dugal la ci biir tuul la bu boobaa nag foofa boo fa yóbbuwut lu leer danga nga ko te àq lu jar a bàyyi xel la te tooñ du gàllaaj kon mbokki jullit yi nañu moytu tooñ nañu wàññi wax yu ñaaw yi nañu wàññi jëf yu ñaaw yi nañu wàññi soxorante gi nañu wàññi yéen yéenante lu bon li réew mii ñu nekk di réewum Sénégal ñun ñëpp ñu ànd tabax ko kenn ku ne jàpp ne li yëkkati senegal ak li koy jëme kanam ci sama loxo la ne kenn ku nekk bu Sénégal amee lu fi dellu gannaaw nga tuumaal sa bopp ne man mii la nga dal di dellusiwaat ci sa bopp xool sa jikko xool sa melokaan xool sa góorgóorlu ak sa ñàkk góorgóorlu bu boobaa kenn ku nekk boo jëlee mbir mi sëf ko sa bopp lépp dana baax waaye buñ ko jëlee sëf ko kenn wala di déglu kenn wala di xool kenn bu boobaa njuumte am am réew kenn mënu koo liggéey kenn mënu koo tabax mbooloo ñooy ànd tabaxum réew te gis nga réew mu yàqu ñett a ko yàq ndaw lu bëgg a tedd te nangu wut a liggéey ndaw lu bëgg a tedd te nangu wut a liggéey kooku lu yàqu cim réew moom la jongoma ju nanguwul a sëy ak mag mu dul wax dëgg mooy mag moo xam ne ñeme na yalla ba nga xam ne la muy wax mu koy wax ba mu jeex te wër na ne li muy wax du dëgg ñetti jikko yi nak dafa fess del ak Sénégal li nak indil nañu fitna indil nañu lo xam ne résultat baa ngi nii bi ci dess moy nañu nango am kilifa adama man ta ñak kilifa dom adama bu ñaké kilifa bu boba jinne di kilifaam seytaane di kilifaam dañoo xamoon ci lislaam ci yaru yoonu tasawuf tariqa cheikh ahmed tijaani bi ñu nekk ñun ak yeneen tariqa yi nga xam ne duñu moom tariqa bu mën a doon ku ca nekk da am kilifa goo xam ne suuf suufiyanke yëpp dëppoo nañ ci genn kàddu ne taalibe dafay mel ni ab néew ci loxoy aji sangam bu ko defee loolu tey jii lépp dañ koo bëgg a dindi sànni ko ci àll ba nangu kilifteef néew na ci njaboot gi nangu kilifteef néew na ci soxna yi mag ñi nga xam ne dañoo war a am ay wasila di leen déglu ànd ak ñoom ci dëgg loola itam néew na bu boobaa nag loolu jar na ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax bu ko defee kon loolu daal ay kàddu la yoo xam ne ay gaane la yu ma doon jiital ci kàddu yi nga xam ne doon naa ko yëkkati boole ko ay ñaan yoo xam ne maa ngi ko bëgg joxe bëgg képp koo xam ne yaa ngi ci réewum Sénégal wala ngay doomi senegal ju nekk ci bitim réew ngay faral di jàng ñaan yi may jox may joxe te ñu fexe di ko def di ko partager di ko tasaare moo xam ginnaaw julli gu nekk la moo xam suba ak ngoon la moo xam xaaju guddi la moo xam benn yoon par bés la waaye daal bëgg naa leena a bàyyee baaxe dog bi ñu di ko def nga xam ne dañ ci yéene réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla def jàmm ci politique bi yàlla def jàmm ci gouvernement bi yàlla def jàmm ci opposition bi yàlla def jàmm ji diine ji yàlla def jàmm ci sëriñ si yàlla def jàmm ci taalibe yi yàlla def jàmm ji sax mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo bokk réew mi ñoo xam ne ay jullit lañ ak ñu dul ay jullit ñun ñëpp yàlla defal ñu jàmm ndax jàmm ji la lépp xaj loolu mooy faatixatu kitaab juróom-ñaari yoon فاتحة ست فوا صلاة الفاتح لما أغلق دي فوا أستغفر الله أستغفر الله سوسان دي فوا بنية قلت يا سلام 371 يا سلام 371 بنية قلت جلور ويدف سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم 17 fois buñ yeggalee ñu jangat benen aya alquran kullama awqadu naran lil harbi atfaaha allah kullama awqadu naran lil harbi atfaaha allah juroom ñent yoon 9 fois li dal buñ yeggalee nak ñu dal di defaat ñetti péri salatu fatiha te jëgu ñaan gi moy ñaan gi nga xamne ne maa ngi koy sant di ko fàttali képp ku yàgg képp ku ab muqaddam képp kuy kilifa diine képp kuy président daayira képp kuy imaamu jumaa képp ku jiite mbooloo nañu ko tasaare di ko def insha allahu taala bu fekkente ne saxal nañu ko di ko def léegi danañ gis yàlla wis ndox mu sedd ci fitna yi nekk ci réew mi ak ci àdduna bi yëpp sax ñu ñaan yàlla suñ boroom yàlla daal di ñuy musal bu ko defee nag ñu boole ci di sàkk sarax ndax sarax dafa baax kenn ku nekk na nga saraxe ya, li nga man ci xeeti sarax da nga génne ko ngir yàlla surtout ndox mu set ñu saraxe ya, ko ñu saraxe loolu ya, ku mën a gis ku mën a saraxe lu weexit nga saraxe ko ni ki suukar wala sondel wala yëre yu weex kenn ku ne loo man ci xeeti sarax yooyu nga def ko te lii ba ñi nekk ci gouvernement bi maa ngi leen koy sant ñu def ko boole koog ñun ñëpp ñu tuub dellu ci yàlla ñun ñëpp nañu tuub dellu ci yàlla ñun ñëpp nañu baalu nañu baalu suñu boroom waaye nañ baalante ci suñu biir ñun ñëpp nañu baalante ci suñu biir nañu baalante ci suñu biir nañu génne mbañeel yi nañu génne coxor yi nañ génne kañaan yi nekk ci suñu xol ñu bëggante te yàlla tax ñu balanté xaq kenn ku nekk baal sa moroom ñu joxante loxo tayit bu ñu joxantee loxo fekk xol yi joxante nañ ko wa laysa dammul ayaadi ida lam tattaxid min al joxante ay loxo kese amul njëriñ bu fekkente ne joxante wu ñu ay xol bu boobaa maa ngi wax ne ñun ñëpp nañu baalante xaq nañu ginnaaw bu ñu yàlla tuubal yàlla te loolu kilifa yëpp ñoo ko war a njëkk kilifa diine yi nañu nañ ñoom ñoo ci war a jiitu ak kilifay aada yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi kenn ku nekk fi ne tey war nga delluwaat ci sa borom tuubal yàlla jéggulu yàlla xool yi nga xam ne ay manqué manqué la yu nekk ci sa digganteeg sa borom nga dal di koy tuub dal koy rëccu ba noppi loo man ci baa lu baax loo man dimbale loo man ci sàkk sarax loo man di jàppale miskin nga def ko lii daal buñ ko defee yàlla mën nañoo indil jàmm yàlla mën nañoo indil naataange yàlla mën nañoo indil xéewal ba lépp loo xam ne nekkoon na lu ñu jaaxal mbaa lu tiit lu ñu tiit lu tiisoon ci ñun danañu ko fàtte kon mbokk yi lii daal laa amoon loo xam ne waxoon naa ne danaa ko yëkkati jëme ko ci yéen di baalu xaq ñëpp di baal ñëpp xaq di ñaan sunu boroom sun subhaanahu wa taala yalla ñu yàlla jéggal di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala yàlla na def jàmm ci réewum Sénégal may ñu kóolute may ñu ak dal may ñu soppante ngir yàlla may ñu bëggante ngir yàlla li nga xam ne moom lañ fekkoon sunu maam yeeg sunu maamaat yi te mooy seq jàmm ak teraanga seq sutura di kal di ree ah yow jóob nga sant yow njaay nga sant dégg nga yow sek nga sant yow géey nga sant kal sukulóor bi séréer bi joolaa bi ñuy kalante di sant jàlloo ki ki sant baaki di kalante xeet yu rafet xeeti kal yu rafet yooyu yu neex yooyu nga xam ne fuñ daje woon rek ci jotaay bu xol yi naree jóg sax kal day ñëw dal di jiifal xol yi ñu daal di mu nekkaat ay ree nekkaat jàmm loolu lañu ñu ci Sénégal léeb lu pon a kumba am ndey ak kumba amul baay amul léeb yooyu ak waxtaan yu neex yooyu moo fi daan am kaañu añi kaañu reeri nit daana ñëw ci dëkk ba nekk fa gan ba ñibbi du génne benn dërëm jënd aw ñam ndax kenn ku ne mu ngi yàkkamti pour dalal ko këram kaañu añi kaañu reeri kaañu naani attaaya dégg buñ bëgg kenn bu bëggee def dara kenn ne déedéet génn ci poosam daal di koy joxe doom ji nekk doom yi ñëpp bu defee lu jaaduwut ñëpp ànd wax ci doom bi bu defee lu baax ñëpp kontaan a ah waaye waaye sunu doom ji kat yàlla may na ko kenn ku ne di kenn ku ne di ñaan ku dem màkka ñibbisi ñëpp ànd di la sargal lu yu mel noonu jikko yu rafet yooyu mbaax yooyu moom moo amoon ci senegal waaye bu ñu ñëwee bëgg a jël dund ñeneen ñoo xam ne bokku ñoom ñoom aada te seen aada baaxu man sama dom sama jabar sama xaj kese aada boobu nekkul aada bu baax kon nañu delloo si suñu xel yi ndaw ñi nañu jàngaat histoire Sénégal nañu xam seen bàyyi ak seen maam yi ñooy ñan nañu xam ñoom ñooy kan nañu xam diine ji ñu nekk mooy lan nañu xam sëriñ si ñu am ñooy yan sëriñ ak yan jikko yu rafet lañ am bu ko defee bu ñu salteel suñu réew mi buñ ko tilimal ci problème politique bu ñu may saay-saay si ak samba boy buntu buñ jógee ci suñu réew mi bu boobaa fitna ji bu ñëwee kenn du ci mucc yal nañ yàlla dimbale yal nañ yàlla suturaal yal nañ yàlla jéggal nañ yàlla nangul yàlla may ñu dégg